kon poste de premier ministre googu ñottu naa ni tey te dina am lu lu am solo lool ba su Diomaye Faye kattan gi ko constitution gi jox. Mhm. ba daanaka yàlla lay doon ñu am luñ ci fell as néew jox ko premier ministre dooleel ko day indiwaat mbir xam nga fan la ñuy delloom mhm. te boobu bon après li ci mujjee xew neexul waaye nag doon na doon loo xam te ne bu ci bu ci yàlla defoon jàmm mënoon na jub leneen mooy diggante Mamadou Dia ak Senghor. Senghor certes qu'à l'époque on était dans un régime parlementaire et là on n'est pas dans un régime. parlementaire je suis d'accord mm-hmm. mais au moins quand même amoon na ñaar ñoo xamante ni bu leen bu ñu àndoon ndax moom Mamadou Diaw moo ko wax ci livre gi mu bind mu ne sama diggante ak Senghor kii kat bu continuer wul kon Sénégal weesu na fii waaye mu ne malheureusement Senghor def li muy def ba diggante bu yàqu kon mm-hmm. nañ ñaan yàlla kon diggante ga yàqu woon ca ànd jooja te yàlla def diggante gi sax ngir sénégalais xam nga loom am soloom lañ ñuy yàqal mm-hmm. ceeb ga ñuy yàqal midi neex nag neexul moo am solo ci ci sénégalais yi maanaam lan la ñuy def ba mën a taxaw ci jafe-jafe sénégalais yi mën koo faj. Mhm. pour terminer je voudrais juste dire à ce monsieur que mag euh, François Bayrou n'a pas joué le même rôle que Sonko a joué ci ci ah Macron ak mhm. Sonko yi Diomaye mhm. bokkul. François Bayrou a été juste le le soutien qui a déclenché qui a déclenché et qui a amené d'autres à venir soutenir Emmanuel Macron alors que ici. véritablement c'est Sonko qui a été le, le cœur de l'élection l'artisan monsieur je voudrais également vous dire en 2014 bi France le Sénat français dafay seen rapport de ko euh, l'Afrique est notre avenir ce n'était pas pour la construction de l'Afrique c'était plutôt pour li ñu gis ni pour que la France puisse maintenir sa en fait son taux de croissance sa, et même son vœu d'être une puissance dans le monde il faut que la France ait un pied sur Afrique. le continent africain. <laughs> Et peut-être on pourra en développer non, autrement. Non, non, c'est complètement... Non, non, ça c'est complètement... Non, enfin, Il ne faut pas toucher à la France. non, non, non, non, du pousser. <laughs> Pape Sidi, nekkuluma fi, moi je suis sénégalais. De. <laughs> Simplement, ça me navre de voir un professeur de l'université. On va, on va, on va, on va, ah, vous n'êtes pas professeur. Mais juste, demain, il est fort rek lay Je n'ai pas la même Abou, lecture que Abou, vous et je pense que beaucoup n'auront pas la même Abou, lecture du rôle. Ah joué par le président Abdou Diouf sur la démission de Senghor et ce que vous dites sur la France, Abou, ah je pense que vous méconnaissez le sujet. Abou, ah excusez-moi. Effectivement. On va, on, va, continuer ce petit débat entre euh, ce qu'il a donné comme euh, opinion non, sur non, la, le truc de la France. Baal leen ma rek baal leen ma rek docteur excusez-moi dama bëgg euh, ñu épuiser question bi nga xam ne moom mooy la question de. c'est pas mal de personnes j'ai vu même euh, des intellectuels faire des articles sur la question en disant pourquoi merci docteur. Oui, parce que li nga jàkk boo boo permettre parce que damay bañ Sénégalais yi. benn waxuma démission wu Senghor. dama ni Senghor bi muy génn réew mi. bokkul mhm. de. bokkul ak am déet sur la France maintenant monsieur. Euh, j'ai fait ma thèse. un peu sur ça. waaw di ngeen ci ñëw. n'est-ce pas na ci waxtaan ba ginnaaw si waxtaan. loolu beneen débat la après boo ko envoyé. waaw boo lëgee boo ko liiree nga wax ko ko. c'était plutôt les intérêts que la France a aussi mën naa la jox ko mais pas pour la construction de la. abou ah, maa moom nii lañ dëkkee Tomé Jerry mais léegi xam nga kii li mu def. baax na kii ñu rappeler. ci genèse histoire butel lu mu def olof Ndiaye neen na loolu la saañ ba di xeeñ mhm. waxul ne loolu mooy am exactement ci diggante Sonko ak jomaay Diomaye mhm. ñaanuñu ko yàlla waaye li mu wax moom mooy lii amoon na ci diggante Amadou Ay Dio ak diw mhm. lii amoon na ci Paul Biya euh, pour euh, pour la mémoire Paul mhm. euh, Paul Biya bi muy nekk président Cameroun boobu Diomaye mii nekk suñu président tey deux ans la am mhm. Dame Mbodj dañ ko eh wax waaw ah, jërëjëf d'abord ci question wu Diomaye Sonko question boobu xam nga ñu bëri lu tax ñuy daanu ci lu jëm ci mbirum anti système bi parce que ñun dañu gëm ni depuis 1960 pour la première fois système bi dajeeg un adversaire redoutable on a toujours eu au Sénégal et dans les pays yi mu cité moom une compétition au sein dans même camp cest à ñoom waa système bi ñoo doon paasante nguur bi système bi nag mooy ñi nga xam ni ci réew yi ñuy diriger muy sunu réew yi yëpp dañ leen a mouler dans le schéma français tubaab yi ñoo leen tànn doole leen ci seen i réew ñu fay nekk président di leen fa nekkal ñoom ñu nekkal fa seen bopp ak seeni i jegeñaale ak France booy laaj da laaj la cellule africaine française ñoom ñoo lay jox seen xalaat ba tax na Amadou Ba bi mu bëggee falu dafa dem wax ak ñoom tëpp Macky Sall ñu imposer la choix Macky Sall ba tax Macky gis ne Amadou Ba wër na ko ndomba dem na ca ay kilifaam ni leen tànn leen ma ndax maa gën ci yéen. su ngeen ma tànnee imposé leen ma Macky Sall ñoom ñu ne Macky Sall tànnal Amadou Ba Amadou Ba musa ah, Macky Sall musa tànn Amadou Ba. noonu la demee. mais noonu la demee c'est comme ça que ça s'est passé. Hmm? loolu moo tax Amadou Ba musul am le soutien de Macky parce que Macky Sall dafa gëm ni da koo jaar ca ca njobatan ma la jaare jaarewul ci moom pour nekk candidat kon Macky Sall li nga ciy jàngate mooy. moo hmm. yenn président yi lim nii moom ñoo yem. mooy ñoom ñeneen ñii seen i kilifa ña nga France. ñun nag dañoo am président boo xam ne pour la première fois li ko fal ak ni muy sukkandiku du France kon image bi ñu doon rafet bi ñenn di ñaawlu ñenn di ko rafet lu man awma ci problème parce que les gens sont ku nekk am xalaatam ma gëm ni image boobu dafa war a neex sénégalais yi parce que bu ñu amee président moom da daan laaj la cellule africaine de France dem Élysée ñu koy wax ne ko jaaral wii yoon wee yoon ñu koy xelal ñu am léegi président boo xam si ki koy xelal fii la ne ci réew loolu baax kon président Bassirou Diomaye fay bu ne ma woon day laaj Emmanuel Macron wala day laaj euh, euh, Joe Biden wala keneen pour muy doxal sunu réew dinaa gëm ni kon indépendance bi ñuy woote ak rupture bi nuy woote kon jotagun ci mais fekkante ne ki nga xam ne moo tëgg projet bi tax mu nekk président de la république lay laaj kon kay alhamdulilah parce que projet boobu la Sénégal ay voté buy laaj ku laaj day laaj Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo ak Bassirou Diomaye Faye ak les cadres du parti ak les alliés ñun ñëpp ñoo tëggandoo projet bi ni lii buñ ko tegalee sénégalais yi daan ko voté ñu tegal leen ko sénégalais yi ko te projet boobu moo war a gouverner le Sénégal ba tax slogan bi ñuy wax ni jomaay euh, mooy sonko sonko mooy jomaay mooy ku ci kum ci mën a doon ci ñoom ñaar projet bi lay doxal kon benn la mhm. waaw kon kay comme benn la dañuy waxtaane ñoom ñaar projet bi la kon kay mu nekk ci gouvernement parce que le vrai débat c'était question bi nga posé Pape Sidi mooy le débat du ay est-ce que Ousmane Sonko war naa taxaw ñu koy ñu koy recevoir palais mu ànd ak Diomaye non loolu du wax ji wax ji mooy la vraie question mooy Ousmane Sonko day jël ay responsabilités ci wetu président Diomaye wala day toog dans l'ombre di wax xalaatam loolu mooy vraie question bi loolu nag man mënu ma ko trancher. parce que mm-hmm. posé nga ma question bi. mun mm-hmm. ma ko trancher parce que question la boo xam ni. président Diomaye. li mu laaj dafa bëri président Ousmane Sonko président. Diomaye suñ ci waxtaan jàpp naa ne question boobu ñoom ñaar ñoo ci toog waxtaan ko Ousmane ni damay jël ay responsabilité wala non dama lay bàyyi nga gouverner mais nag lépp looy def ñu ciy waxtaan te xam nga lan mooy intérêt wu euh, projet bi mooy euh, ñun li ñuy dañ koy wax xam nga ñun li ñu wutee gars yi mooy avant ñu dem élection la ñuy wax li ñuy def Ousmane sonk ci discours de clôture bi bi mu def à Mbour pourtant li ñuy wax fi yëpp tranché na ko daf ni ci discours bi dégluwaat leen ko ba ngeen teg ko ñëpp seetaan ko dane dans son discours ñun projet la ñu yore ñun jëmm ji intéressé wuñu projet boobu ñu yore président Bassirou Diomaye mii nga xam ne moom la yàlla def moom moo ko war a doxal su ko doxalee ni mu ko war a doxalee ñun ñëpp dañuy ànd ak moom topp ci ginnaawam ñu doxal ko su ko doxul dañuy jàpp ci nopp bi xam nga loolu wax sax ba ki ma dana ma ne ko ah jàpp ci président de la république xaw a ëpp de mais foofa la mu ci bëgg wax mooy mënta def leneen dul doxal projet parce que projet bi lan ñuy jaay sénégalais yi bi mu mu ne nag élection bii dañ koy gagné dañ koy gagné parce que lii nu bëgg a propose sénégalais yi sénégalais yi won nañ ñu déjà que d'accord nañ ak ñun parce que effectivement depuis des années ñëpp gis nañ ni lool la sénégalais yi bëgg mu mu gouverneur réew mi ci campagne bi loolu la sénégalais yi wane moom la xam nga ñun lu ñu sonal ñun Sénégal dañoo am affaire bu ñu tàmm boo xam ni moo ñu topp c'est-à-dire dañoo tàmmul nit di jiite parti dem ci élection te du ne candidat bi ñun xamuñu ko xamul tax parce que Senghor a fi nekkoon jiite parti socialiste nekk seen candidat ab bi mu demee bàyyi fi ab Diouf muy jiite parti mosuñoo def ab euh, ay ay ay primaire comme ni muy amee aux États-Unis entre les démocrates et les républicains tey jii kuñ la laaj kan mooy jiite le parti républicain wala démocrate seen àdduna bi kenn du ko xam xamul parce que ñoom président ba da nga xam te président pourtant moom jiite wu dañuy dem élection ki jiite parti bi organiser ay primaire bu jiitee ay primaire ñi bokk ci parti bi yëpp ku bëgg a nekk candidat nekk na candidat mais ñun Sénégal la noo xam mooy kii jiite parti bi moom mooy nekk candidat bi. Mhm. loolu moo am ci Senghor moo am ci Abdou Diouf moo am ci Ablaye Wade moo am ci Macky Sall. Mhm. guleet nag ñu am président de la République boo xam ni kii jiite parti bi nekkul candidat bi. Mhm. loolu mooy lu bees. te Sénégalais yi dañ doon tànn bii pas. voilà léegi nag kon loolu moo tax muy gêné mais pourtant Obama buy dem. le président démocrate buy ànd ak moom du gêner kenn te pourtant Obama jiitewul parti ba de mais du woon gêner mais pourquoi ça gêne kon ki jiite sun ki jiite parti bi ànd ak le candidat bi gagné nag président de la république ñu dem ñu war a waxtaane pour waajal passation euh, pour jébbal lenge yi ñu war a jébbal le président élu le le 2 avril donc il ne faut pas que ñuy diaboliser loo xam amul njariñ xamale am solo mooy ñi nga xam ni euh, ñoo doon xeex Ousmane Sonko xam nga tax ñu lajj mooy niñ doon xeexe ñeneen ñi lañ ko xeexe ñoom danoo jàpp ni niñ doon xeexe ñeneen ñi mooy système bi ñoom système bi niñ doon xeexe seen i adversaire depuis dem mhm. de Mamadou Dia niñ système bi à chaque fois ñu bëgg a xeex seen nit dañ koy broyer parce que ñoo gëm ni kooku moom suñ ko éliminer rek éliminer nañ ko alors que Ousmane Sonko xam nga mu ñu ko woon éliminer parce que moom xeexalul jëm moom moom projet la doon xeexal moom projet bi la doon jéem a muccal daa tëgg ab projet jaay ko sénégalais yi sénégalais ni ko projet bi bis bu gouverneur Sénégal Sénégal dem ca kanam mu jël projet bi nag di xool na koy aare mhm. moom na ko fexee doxal waaye bu ko doxalul na ko keneen doxal alors que ñeneen ñi ñoom duñ def loolu xam nga ñoom luñ gëm mooy ñoom seen jëmm la ñuy teg teguñu projet moo tax soo leen xeexee ba rey jëmm ji yëfee yàqu na fii nag boo xeexee ba rey jëmm comme projet bi la ñuy ñoŋal mhm. léegi day jël keneen mu yóbbu projet bi ab ëmb la comme ni mu ko waxee ab ëmb la bu ñuy jàllale ëmb boobu mooy naal bi li nu naal pour Sénégal li nu bëgg a defar Sénégal li nu yéene Sénégalais yi li nu yéeg jéego yi nu war a dox ëmb boobu ñu ëmb xalaat ko muy lu cohérent dans tout les man mën nañ ci dugg suñ bëggee ci waxtaan justement loolu nag nga xam ne moom lañ bëggoon a doxal léegi bi ñu demee bañ wutal ko barrière ñëpp xam ne Ousmane Sonko nen ko éliminer candidature am ci tappale lañ ko éliminer parce que tout simplement moom Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ne biñ koy génn ci fichier électoral bi nañ ko fay génnee jaarul yoon parce que su fekkee dañ ko génne ci fichier électoral dañoo waroon def procédure de radiation ñoo xam ne xaju fi ñu dem imposer ko ñoom conseil constitutionnel daan ni dindi nañ ko par force alors léegi nag kon dangay ngay comprendre lii nga xam ne moom moo am lu euh, lu xel mën a nangu la mooy Ousmane Sonko nekk au côté de Bassirou Diomaye Faye parce que loolu xel mën a nangu pour que ñu ñu réaliser le rêve xam nga ñoom euh, euh, socialiste dañ fi def 40 ans au pouvoir les socialistes ont fait 40 ans au les libéraux ont fait vingt quatre ans au pouvoir man jàpp naa ne comme nguur gi rëcc na les socialistes et les libéraux parce que ñoom système lañ bu ñu fi nekkoon nekkuñu fi woon pour un projet de développement du pays li nga xam nag moom la Sénégal doon rêvé mooy naxante ba récupérer nguur gi dénk ku ñu leen fi nekkal ñooñu leen fi nekkal man jàpp naa ne lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt war na ñoo mën a def 40 ans. la Ousmane Sonko parce que xamul tax waa ca jëm xamalu tax ñu 40 mooy que ah oui Bassirou Diomaye Faye peut, peut faire deux mandats Ousmane Sonko deux mandats et keneen koo xam ne dana consolider li ñu liggéey parce que sénégalais dañ ciy kontaan kooku tamit ñoo def deux mandats keneen def deux mandats. lépp ci Pastef pourquoi lépp du ay affaire Pastef maanaam xam nga Ousmane Sonko bi muy teg candidature tegul Pastef kese man mii di wax ak yow Ousmane Sonko moom ma jël la woon fiche bokkuma Pastef pourquoi lépp ci Pastef non des profil qui peuvent porter le projet. des hommes et des et des femmes de valeur. yoo xam ne am nañ ay compétence ñu nekk biir foo la ñu nekk des alliés de Pastef wala ñu nekk fu ñu jëli feneen. léegi daam donc loolu man li ma gëm mooy que ni projet bi nga am moom lañ teg. li ñu bëgg mooy mu gouverner la Sénégal parce que sénégalais nag ñu gis lu baax di ko jëndeek loo xam ne ñam nañ ko 64 ans 64 ans lañ ñam la système ñu gis ni système bii nekkalu leen fii système bii moo leen di signal ay contrat yoo xam ni dañuy wanteer seen pétrole ak seen gaz ak seen zircon. ñu am anti système bu ñëw tegal leen un projet boo xam ne nëbbutuwul parce que Ousmane li muy def daf ko wax sénégalais yi wax ko waa àdduna bi dani on va remettre les contrats sur la table te loolu moo incha allah loolu lay def parce que daf ko wax avant la campagne dani avant la campagne sénégalais yi voté leen le projet projet bi lan moo nekk dañuy tegaat contrat yi ci table ji parce que contrat yi intérêt Sénégal nekku ci. léegi daam donc loolu man jàpp naa ne am na solo oui. ñu euh, circonscrire un peu pour avancer parce que. lii ñuy wax ni yëpp débat yoo xamante ni ci combat yi ngeen nekkoon je pense que ni débattre nañ ci lu bare bare bari. Mhm. c'est ce qui a convaincu même les Sénégalais à adhérer au projet pour mën a voter nous sommes à 48 heures wala moins de la prestation de serment du nouveau président muy Bassirou Diomaye Diakhar Faye passation de pouvoir war a am ci diggante bi vous qui enseignant am na lu ñuy xaar lu bari ci lu jëm ci wàllu éducation que ce soit muy enseignement éducation nationale que ce soit muy enseignement supérieur bi parce que gis nañu jafe-jafe yi nga xamante ni am na tout récemment euh, fële nga xamante ni moom mooy UGB euh, gis nga bakkan rot na fa jafe-jafe yooyu yëpp dajaloo mu am ay urgence yu nga xamante ni taxaw na tey madame le maire mi ngi wax yéen a ngi ci appareil boo xamante ni. xamaguñu ce que sera fait maanaam l'acte un bi nga xamante ni moom lañu ñu war a poser urgence su sénégalais yi taxaw ngeen am loo xamante ni jaay ngeen ko sénégalais yi sénégalais yi di ko xaar nekkatul le discours populisme bi nga xamante ni dañuy def dañuy def dañuy def mais dañ leen di xaar ci li ngeen li ngeen diggee nan ngeen ko fësee ne defee parce que fi mu toll nii nekkatul ci modèle on va mais lan la ñu mën a def. parce que Sénégal tey bu ñuy xaar sur la relance économique dañ naan ban modèle économique la ñu bëgg a def su ma sukkandikoo ci projet wu PASTEF moom mooy un modèle économique endogène tey fan la ñu war a jëlee ressources yooyu nga xamante ni tey sénégalais bi dina allégé maanaam ak dundam mu woyof ñi nga xamante ni dañ naan la vie et cher jafe-jafe boobu noonu yomb ci ñoom territorialisation bi nga xamante ni dañ koy wax tey jii. mairie yi collectivité locale yi fonds de dotation fonds de concours yeneen ak yeneen ak yeneen jafe la te ñu bari ñoo xamante ni am nañ ko mhm. am ñoo xamante ni tey ñi ngi taxaw di wax naan diggoon nañ fi chaque commune un milliard ak yeneen ak yeneen ngir développement yooyu nga xamante ni ci gox yi la laaj moo tax ma ni tey lan la ñuy xaar ci président Diomaye Faye ak gouvernement bi nga xamante ni moom la ñuy teg muy ay actes yu fort yoo xamante ni dans les premiers quatre-vingt-dix pour ne pas dire un mois lu sénégalais yi di gis la ngir rupture bi nga xam ne moom la ñu opté pour un espoir ñu mën a am yaakaar ni liikat kat mi ngi dem moo tax ma bëggoon ñu avancer ci question yooyu noonu profito di moment que yéen a ngi fi pour mën a avancer loolu beneen question bi euh, docteur laa koy jox mu jëm ci reconfiguration bi nga xamante ni dinañ ko am sur le paysage politique parce que titré nañu sànq lavenir de la l'APR mais dañ ko occulter dugguñu ci ku mel ni Amadou Ba il va prendre sa responsabilité ou bien il va rester sur l'appareil APR wala déet loolu beneen question la boo xamante ni di nga ci mën a tontu aussi ñi ngi woon sànq sur des réformes lan la ñu war a mën a xaar d'autant plus que yaa ngi expliquer sur le régime parlementaire ba ñëw ci régime présidentiel d'ailleurs même dañ naan un régime super présidentiel c'est vrai que ni vous en êtes profité pour leeral tandem bi nga xamante ni moo amoon ci président et vice-président <clears throat> nu été tey explication yu claire yi nga xamante ni amoon na sur les plateaux ñenn nit ñi jàppoon nañu ni donc dañuy jëm ci président ak vice-président alors que donc ci projet bi ci li leer mhm. moom mooy que ni ci élection présidentielle la mën a jaar te du ci mandat bi kon am na lu ci xel mën a dal moo tax ñu bëggoon ci réforme yooyu noonu docteur après nga dellu si la question est partagée entre euh, avant de répondre à la question euh, autant pour moi dame on va donner la parole à Paco Jackson am na benn question moom am benn pour daam benn euh, aussi bu leen ko fàtte ne mën ngeen ko dóor xeer yi dak aussi. daam c'est très simple ngeen di tëbee Khadija bañ ko dóor xeer yi. Khadija damay ñëw ci moom <laughs> damay bàyyi bëgguma <laughs> gourmand parce que question yi dañoo gudd. waaw bu dernier temps mooy ah gis naa ni que déglu naa la mais dama gis ni da nga tenir à ce que euh, ñu reprendre quelque part une <coughs> chasse aux xam nga par rapport aux anciens dirigeants xam nga ñu yàbbi ñu yàbbi alalu réew mi ma buggoon xam euh, ban jàngat nga ci am. waaw ah, loolu am na ñu koy wax ma ñëw ci docteur ma <laughs> gis nañ benn coalition wu Karim Wade le retour de Karim Wade entre Karim Wade et le PASTEF donc jàggat euh, xam nga. jàngat ko euh, Moussa am na ñu lay tuddee fii le chef de village de Kikidène yi c'était une parenthèse. Euh, waaw donc damay évoquer question wu. Moussa Paco Jackson rapidement doo ko dem ci yeneen yeneen interpellation yi. ñu xaalis bon man jàpp naa ni li ñuy xaar. Mhm. du nekkuñ ci logique gu defante. loolu il faut sénégalais xam ko. ah loolu mooy leer. maanaam on n'est pas dans là pour faire dans l'acharnement. ñi jël xaalisu réew mi nag. ci laa waaw bu ñuy wax defante mooy di jaay nit doole. ñoo wane ne maa yore état dama koy comme président Macky Sall doon <laughs> loolu moom jàpp naa ne jeex na Sénégal. Mhm. en tout cas tant que ñi nu dénk réew mi actuellement euh, nga xam ni ki nga xam moom lañ fal muy président Bassirou Diomaye fay moo nekk à la tête loolu moom day jeex. Mhm. maanaam kenn du jaay doole kenn parce que doole. askan moo la ko jox mais doo ci jaay doole maintenant ça ne veut pas dire que réew mi tamit dañ fee war a def ku nekk loolu a neex